candidature bi ñëpp doon xaar nag muy candidature Bassirou yi fay nag validé nañ ko tey ci la nii ne mais daal candidature ki xam di Ousmane Sonko rek lay ñëpp di xaarandi ba xam rek ana fan rek lay mujjee ba xam moom mi nga xam si nag moom moo di. Eh, Bassirou Dioma eh, Ousmane Sonko daal eh, candidature am ana nag dinañ ko valider wala dun ko valider ginnaaw Bassirou Diomaye fay nag valider naan li nga xam moom moo di candidature am mu dese candidature bu président Ousmane Sonko loolu nag ñëpp rek ñoo ngi koy xaar ba xam nag ana moom mii di Ousmane Sonko daal candidature am rek fan rek lay mujjee moom yaa xam moo di Ousmane Sonko ginnaaw daal. ñëpp rek ñoo ngi xamle ne daal moom dafa nekk en chute ci instant bi ndax Sénégal yëpp ngi toog rek di déglu mba xam rek ana fan